comme ni ko baaxoo defee at mu jot guddi gàmmu gi dundal nañ ko fii ci diwaanu Thiès ci ndigal ak teewaayu sëriñ Moxtala Mbacke ibnu sëriñ Saliou Mbacke du guddi goo xamante ni bii sëriñ bi dañ ko daal di màggalee ni ko sëriñ Touba diglee taxsimuhu bi sunnati dundal ko ci sunna goo xamante ni bii dañ ko daal di dooree ak guddi goo xam ne ay siyaar lañ ko daal di amee sëriñ bi dalal gan yi dalal taalibe yi waaye tamit daal di nangu bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki taalibe Serigne Mourtada moom Serigne Saliou fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi fii ci jotaayam ci Thiès di fi gàmmo di leen nuyu di leen ziar di wax ne gàmmo gi moom ci cosaan ba léegi niñ koy defee fii mooy ku ne xam na ne Serigne saaliw uh, gàmmo mbiram la woon ginnaawam it sëriñ Mourtala bi nga xamee ne bokk na ci njaboot gi liggéey bi tabu ci seen loxo mu ngi dundal gàmm googu fii ci Thiès ci eh, kër gi fii ci Grand Thiès ba tey eh, niñ koy gàmmoo nag mooy ni ko sëñ Touba diglee rek di ko gàmmoo ci sunna eh, di ko sellal kémtu lay kàttan moo tax bu ñu xësee tàmbali jotaay yi ba nit ñi saafonteeg sëriñ bi ba noppi dañuy yegg ci tànt bi def ñetti kuréel kuréelu mawaahiboog jës book mu xaddimaat Euh, ak Barzan ji di ko gàmmoo ba ba fajar sëriñ bi joxe ay kàddu ndénkaane yoo xam ne day jëriñ jullit bi jëriñ taalibe murid yi fu ñu mën a nekk waaye jëriñ waa këram mu recadre leen wax leen ni ñu war a doxee bu ko defee ñu def ko yóbbal ba déwén ak jàmm noonu lañ koy faral di defee at mu jot fii ci cees ànd ko ak sëriñ Mouhamadou Mourtada moom sëriñ Saliou ginnaaw ziyaar yi it guddi gi nekk na guddi goo xamante ni bii fës na lool ci dundal ruu yi waaye fës na lool ci dundal jëmm yi ak ay berne yoo xam ne daan nañ ko fi séddale ni mu gën a yaatoo ci mbooleem jullit yeeg taalibe yi fi teew yëpp. yàlla yaramal say jaam ngir muhammadu rasulillah salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di nuyu mbokku julit yëpp di nuyu mbokki jëwrin yi nga xamante ni ñoo teew fii ci suñu wet kii mooy Assane Fall mooy jëwrinu waañ bi man maa topp si moom moom nag mooy jëwrinu buun daara buun man maay jëwrinu daara géejawaay kii mooy soxna Daba mooy jëwriñ daara jigéen ñi Géejawaay kii mooy Asu Diop mooy jëwriñ daara jigéen ñi cees ñu bokk nekk fii ci waañ bi ànd liggéey bi nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moo ëpp doole ci liggéeyu gàmmu gi muy waañ bi ñu ànde ko ñun ñëpp tey nag yàlla dogal na bi nu xëyee togg nañ laax baaxantal ko ginnaaw bu ñu defee loolu ba pare togg nañ ay añ yu jàppadi wax dëgg yàlla togg nañ fi ceebu ndawal togg nañ fi tamit ceebu jën muy ñam yu varié biñ paree ci loolu it waa collation ñoo nañ fi joxe fi maanaam ay xéwal yu yaatu bi ñu paree ci loolu ñoom it ñun ñu ngi nii ci reer yi daanaka ñu ngi togg tufe ak petit pois moom la ñuy togg reer. ñu ngi ñaan ci doole Serigne Saliou lépp loo xamante ni waaye fas na ko fi rek ñu ngi naan saa boroom defal la ko. dundal dundal ko ci wàllu mbernde. bernde it ci wàllum ruu ak njàngum xasida mu am solo moo xam ne amee nañ ko fii waaye it daal di amee njàngum li nga xam ne moo di barzan bi moo tax ba léegi nii lislaam bala ngaa def jaamu yëpp da ngay wéral sa pas-pas ci iman mooy nga gëm yàlla ak niñ koy jàngalee charte yi boo noppee doog a def lislaam ji lislaam ji mooy juróomi ponk yooyu ñu xam ñun nag liñ ci cër mooy lii di tuddee tasawuf mu ñu koy tuddee al ihsaan mooy ngay jaamu yàlla mel ni yàlla gi fi sa kanam toog boo ko gisutee na la leer na mi ngi lay gis ndax loolu misaal la waaye nit ñu bari xam dañ ko waaye léeg-léeg da leen di réer ndax bari na loo xam ne bu seen moroomu nit toogee duñ ko ñemee def waaye bu ñu wéetee ñoom rek dañ koy def lislaam di la wax ne ki lay gis moo raw ki nga ki nga ko bañoon a won loolu mun mooy lis mooy lixlaas al ixlaasu mooy sellal su la neexee nga tuddee ko al ihsaan nga tudde ko al mooy yoonu tasawuf yi nga xam ne ci la ñu ne yonente bi nag ci diggante yooyu itam ci la yi di xeex ndax xeex yi du woon xeexu soxor waaye xeexu aar sa bopp la ak fayu maanaam ndax néewal doole gi metti woon na ba nga xam ne noonu rekk lañ ko mën a dànke mu mujj nag di sewu ci xeex yooyu lu mel ni xaswatu badr lu mel ni xaswatu uxud lu mel ni yamama lu mel ni xaswatul euh, xandaq xeex yu bari yoo xam ne yonent bi da ci daan yaatal diine ak défendre ci boppam ndax ñëlee dañ koo bëggoon a bunduxataal lislaam tàmbulee taxaw am nag ñu taxawoon mooy saxaabatul kiraam ñu njëkk ñooñee tey la seeni dereet jaaye ko ak seeni alal ngir lislaam yegsi ci ñun tey jii loolu moo leen di lislaam ci ñun moo tax ñooñu am nañ cër boo xam ne dootul jeex ba mukk fépp fu lislaam yegg ña ko aaroon ba ba nga jot ci ñooñu yàlla da leen ciy cëral ba fi mu ne عطر اللهم خبره الكريم بعرف شظي من صلاة وتسليم عطر اللهم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم وعطر اللهم قبره الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه wa dawal kumato dawal kumato hinal amato bila dibali bima koto ma jakoto bina baydo zalir tiraye talone khayr ko ci wàllum bernde bernde it ci wàllum ruu ak njàngum xasida mu am solo moo xam ne amee nañ ko fii waaye it daal di amee njàngum li nga xam ne moo di barzan bi. ñu leen di sant bu baax di leen taxawaay diggante màggal gi ak gàmm gi xam na ne diggante ñaari xew-xew yi dafa jege lool te jege te boobu léegi yéen ngi ñëw. Euh, li des ci liggéey bi day doon mbirum Xelcom loolu nag jamono ji ni muy wëlbatikoo ak nawet bi moom saa yu yegsee rek euh, jumtukaay yu jokkoo yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi danañ ko yëgle ba nga xam ne ñëpp danañ ko yëg phénomène beneen bi mooy ñaaw njort yi ak waxante yu ñaaw yi bu ko defee ñun tam kii ñu nekkal royukaay la ci ñun ci loolu buñ ko xoolee duñ juum yàlla dinañu dimbali ndax képp kuñ tudd ci mbooloo saa yoo tuddee turam ku ko tudd rek sag nga ci jële ndax fi ko doomu aadama yi teg ak fi ko nit ñi teg ndax ci niñ ko gisee nii kon képp ku koy roy war ngaa waddu sa làmmiñ rafetal ko jikko yu ñaaw yi nga xam ne moo xew ci jamono ci waxukaay yi nga moytu ko bu baax a baax ndax bari na lu muy yóbbe nit ki lu mu bëggul woon ci wàllu alkande wala wàllu bàkkaar wala loo xam ne yoonam newu ci mu dugg ci bu ko defee li ci des ñu sëriñ bi mu ñaanal ñu ñu yàgg koo fekkee yàgg koo ànde te lépp di gën a xéewale di gën a tawféexe